alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ñu ngi sant yàlla subhaanahu wa taala cant gi mu yellool di julli ci yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko ñaanal jàmm xéewal ak mucc moom ak ay soxaabaam ak képp ku topp yoonam ak njubam ba keroog bés penc gannaaw loolu di fàttali di fàttali suñu bopp ragal borom bi subhaanahu wa taala jëfe ay digleem bàyyi ay tereem mbokk Euh, lii ay teggiin la yoo xam ni jul bi war na koo jikkowoo war koo tegginoo mu doon ay comportement yu muy am war koo jëmale ci boromam subhaanahu wa taala ak ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak ci saxaaba yi ak ci alquranul karim ak ay ñaari waajuram ak sa dëkkandoo ak koo xam ne sax sa noon bu la bañ la sharia ñii ñëpp kenn ku ci nekk dafa am ay teggiin yoo xam ne dane danga ko war a tegginoo jëmale ci kooku ak ñi ma tudd ñi ñëpp teggin yooyu léeg-léeg baax na ñu koy jàngat di ko fàttaliku jéem koo jikkowoo jëm koo dund ba ca njëkk tey ci jataay bi ñu war ko waxtaane euh, mooy teggin bi jaam bi war a am jëmale ci boroomam subhaanahu wa taala boroomam mi ko moom sàkku ko am lum sàkku ci moom mu war ko def teggin yi jaam bi da cee war a jaam da cee war a jaar digganteem ak boromam subhaanahu wa taala ba ca njëkk mooy sellal mboolem jaamu yàlla gu muy def na fekk ne jaamu yàlla gi la tax mu koy def mooy yàlla subhaanahu wa taala kese la wutu ci daraja wutu ci ku ko sant wutu ci ku ko mere wutu ci ku ko tagg wutu ci tur wutu ci ngërëmal kenn ku dul borom bi subhaanahu wa taala soxlawu ci dara lu dul yàlla ba pare jaamu yàlla bu mu mënti doon mu bañ koo jël di jox keneen cër ku yàlla ak ku mënti doon moo xam yonent bu yàlla yónni la malaaka bu jege yàlla nit ku baax wala leneen luy mbindaa foonu yàlla jaamu yàlla kenn amu ci cër ku yàlla jaamu yàlla léppam yàlla yàlla la war a doon kenn amu ci cër parce que sañ-sañ boobu kenn amu ko ku dul borom bi mooy ki yelloo ñu daal di ko koy defal du keneen ñaareel ba <clears throat> loolu tax borom bi wax ni ñoom digaluñu leen jaam yi lu dul jaamu yàlla waaye du jaamu yàlla rek pour jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne dañ koy sellalal seen borom muxlisina lahu diin ñaareel bi mooy sori bokkaale yàlla subhaanahu wa taala bokk na ci teggi ni jaam bi war a bàyyi digganteem ak moom mooy nga bañ a bokkaale yàlla ci wax bañ a bokkaale yàlla ci pas-pas bañ a bokkaale yàlla ci say jëf ñett yi nga fexe ba doo ci bokkaale yàlla ak lépp lay yóbbe ci nga tàbbi bokkaale da ko sori parce que yàlla subhaanahu wa taala am na lam wax ci bokkaale ci alkuraan ñëpp xam ko ñetteel bi moo ñi féeteeg yàlla doomu aadama yi yàlla da leen indi ci kaw suuf sàkku ñu jaamu ko nit ñi sëddaliku ay kuréel kenn ku nekk am fu mu taamu walla am lu mu tànn pour topp loola wala am fu mu féetale boppam waaye ñi féeteeg yàlla te nekk ci yàlla digle bàyyil yàlla tere ñooñee nga féeteeg ñoom mooy ànd ak waa tawxiid képp kuy nekk nitu tawxiid tënku ci tawxiid nga ànd ak moom mu doon sa partenaire doon sa féete kooku ngay faral waaye nga noonoog képp ku noonook yàlla nga noonoog moom loola ña ci fi jiitu féete ci kaw mooy bokkaalekatu yàlla yi ak képp kuy jël dara di ko teg palaasu yàlla di ko takkal garaatu yàlla wala di ko jox cërub yàlla ak ku mënti doon ñeenteel ba mooy ngay bàyyi xel yàlla ci saa su ne doo def ni bu mbir yi neexee nga fàtte yàlla bu mbiri méttee sa xel door a dem ci yàlla nga koy door a fàttaliku di door a tudd yàlla wala di door a bàyyi xel ay santaaneem ak i tereem waaye saa su ne sa xel dafa war a nekk ci yàlla mbir yaa ngi métti sa dafay nekk ci yàlla mbir yaa ngi neex sa xel dafay nekk ci yàlla yaa ngi ci xat-xat doo fàtte borom bi yaa ngi ci ay yaatu yaatu ak ay yombali du tax nga fàtte boroom bi subhaanahu wa taala loolu jaam bi ko war a bàyyi xel parce que yàlla mu ngeeg ñun ci xam-xamam comme ni nga ko waxee moom borom bi wa huwa maakum aynama kuntum yàlla mu ngeeg yéen fu ngeen mënti nekk loolu mooy yàlla du jëmmam moo nekk ak ñun fu ne waaye xam-xamam moom borom bi subhaanahu wa taala mu ngeeg ñun ci lépp jëmmam ma nga ca kaw loolu mooy pas-pasu ahlu sunna juróomeel ba mooy sori lépp loo xam ni luy merloo borom bi subhaanahu wa taala la ak lépp loo xam ni lu yàlla araamal ci al alquraanam wala ci làmmiñu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juróom-benneel ba mooy bëri looy tudd yàlla subhaanahu wa taala yonent bi boroom bi def ko ne wazkur rabbaka kathira sa borom dee ko tudd lu bëri kon yàlla bëgg na ñu koy tudd waaye tudd gi dafa war a bëri warta nekk tudd gu yem warta nekk tudd goo xam ne dafa nekk ci digg bi waaye dafa war a bëri ba jéggi dayoo loolu taakiid la ngay tudd yàlla lu bëri kon kenn ku nekk war ngaa natt sa bopp yaa ngi tudd yàlla gaa mais ndax ñi ngay tuddee yàlla bëri na wala dafa néew wala dafa dafa diggu doomu yàlla li mu bëgg mooy tudd gu bëri dikran kathiran kon tudd gu bëri la yàlla bëgg loolu moo tax mu ne ko wazkur rabbaka kathiran moo tax yonente bi alayhi salaatu wasalaam tudd yàlla si saa su ne suy jóg suy toog suy tëdd suy taxaw suy dox léppam moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam tuddoon yàlla la juróom-ñaareel ba mooy jub ci diine yàlla subhaanahu wa taala te sax ci sax ci loolu moo di jafe ba pare bañ a dellu ginnaaw ci sa diine bañ a wàcc say principe yi nga gëm ci diine ngir ay fitna parce que am na ñoo xam ne ci nit ñi fii ak jàmm ak salaam a ngi xew dañuy dund seen diine waaye bu fitna ñëwee attanuñ ko dañ ko mën a duñ mën a surmonter li nga xam ne mooy fitna gi fitna bu taxawee seen kanam ak ci seen kanamu diine diine ji mooy ñàkk fitna gi da leen di yóbbaale jàmm bi nag fitna bu taxawee sa kanam ngir sa wàllu diine waroo dellu ginnaaw waroo wàcc say principe wala ay poñetu àdduna ay post yu ñu la dig wala alal wala xaalis tax nga wàcc say principe bu diine wàcc li nga gëm dootoo ko ñemee wone dootoo ko ñemee dund wala nga ciy complexé jaam bi war tamel noonu loolu moo tax borom bi wax yonent bi ne ko fastaqim na nga jub kama umirta comme ni ñu la ko digalee kon yow doo jub selon ni nga ko bëggee wala selon ni nga sentiré ngay dundee diine wala selon ni mu la neexee ak ni mu la arrangé déedéet ni ko yàlla diglee kama umirta borom bi dellu waxaat ko ne ko moo tax yonent bi ali daana wax ne suratu Hud moom a biir jaawloo ibnu abbas mu ni lam ca moom mooy aaya bi borom bi dellu waxaat ko ne ko fa lidalika fad'u wastaqim kama umirta waxaat ko ko ci suratu shura ne ko noonee lañ ko bëggee mooy na nga jub comme ni la ko borom bi digale wala tattabi ahwaahum te bul topp bànneexu ñeneen ñi nga xam ne nekkuñu ci li nga nekk da leen ca kon boo leen toppee rek beneen côté bi mooy da ngay wàcc say principe da li nga xam ne mooy njub gi bëggoon léegi mën ngaa woote woon a nga waaye du ni ko yàlla diglee yow ni nga ko ni nga ko ni nga ko sentiree la wala ni mu la neexee la juróom ba mooy jaam bi dafa war di wàkkirlu ci boromam parce que dafa bokk ci charti ngëm mooy at tawakkul ala allah borom bi dafa wax ni wa alallahi fatawakkalu mu teg ci charte in kuntum muminin su fekkee nekk ngeen ñu gëm yàlla da ngeen a war a wéer seeni mbir ci yàlla subhaanahu wa taala wéer say mbir ci yàlla mooy mboolem loo war a dugg ak loo war a def la ca sa mën-mën nekk lañ ca mën nga def ko te mu dagan te dëppoog yoon nga def ko li ci des nga bàyyee ko yàlla subhaanahu wa taala bañ jàpp ni am na kenn ku lay jëriñ ku dul yàlla ba a jàpp ni am na kenn ku la mën a lor te borom bi subhaanahu wa taala àndu ca kon nga wàkkilu sa borom wéeru ci moom jàpp ne yàlla mooy ki lay jëriñ mooy ki lay xañ mooy kiy joxe mooy kiy xañe juróom-ñeenteel ba mooy nga muñ ci ndogalu borom bi subhaanahu wa taala yàlla bu mu dogal ci yow dara mu métti ba nga mer ca ba ci sa di ci tàng wala ba nga cey caalit wala sax mu jaral la nga dellu ginnaaw ci sa diine borom bi subhanahu wa taala waxoon na yonent ne ko wasbir ala ma asaabak waxoon na ko ne ko na nga muñ ci lépp lu la lu la lu la dal te loolu sax dafa wax ne dafa bokk ci min azmil umur maanaam ci mbir yi nga xam ni mbir yi màgg yi la parce que du ñëpp ñoo lu leen dal ñu muñ ko fukkeel ba mooy di tuub dellu ci borom bi subhanahu wa taala ak di saxoo jéggalu yàlla subhanahu wa taala borom bi neen wa tuubu ila allahi jamian ayuha almuminuun laalakum tuflixuun tuub leen dellu ci seen boroom yéen ñëpp yéen ñi nga xam ne yéenay ñi gëm su ko defee loolee mën naa tax ngeen texe que booy tuub yàlla di la jéggal bu yàggee dara du fi des borom bi subhaanahu wa taala nee na kon loolu yoonu texe la saxoo tuub ak jéggalu yàlla kooku yoonu texe la fukkeel baag benn mooy di sax di taqoo di joxe faratay borom bi di taqoo di joxe faratay ak yi nga xam ne moom la yàlla sant muy warugar yi parce que ñu bëri dañoo jàpp ne yàlla mën nga koo jege mën nga koo jege donte ñu bëri àgg ci yàlla la ñuy wax te yàlla kenn mën mënta àgg ci moom da koy jege parce que ci aay yi rot ci alquran dafa ne wa ida saalaka ibaadi anni fa inni qarib baatu jege la jëfandikoo dellu waxaat dem maa taqarraba ilayya abdi ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi kon yàlla baatu jege lay jëfandikoo kon yàlla dañ koy jege du ku ñuy àgg ci moom dañ koy jege jege googu mu ne li koy maye mooy la la ca gën a foor nga mën ko def mooy nga jaar ci farata yi bu farata yi sottee nga door def sunna yi kon bu bàyyee farata yi bëgg a def yeneen ne moo lay jegeel yàlla yaa ngi nax sa bopp kon farata yi muy julli juróom yi woor weeru koor ak yeneen yi ci aju bu fekkee nit ki nekku ci ba pare di wootewu ak jege borom bi subhaanahu wa ak naan day jegeel nit ñi kooku day wax lu ko neex parce que liy jegeel nit ki yàlla mooy nga sax ci farata yi loolu moo tax boroom subhaanahu wa taala mu ne wa maa ab abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi sama jaam mënumaa jege lu gën ma bëgg lu ma sopp loo xam ne mën na ma ci jege lu toll ni muy def farata yi lu toll ni muy def farata yi kon farata yi moom la ñuy jege borom bi subhaanahu kon koo sori farata yi nekku ci jàppal ne ko sori yàlla la jegewul yàlla fukk ak ñaareel mooy di njëkkante ci yiw borom bi ni ak ci jéggalul borom bi subhaanahu wa taala ni ko borom bi waxee wa saariu ila magfiratin min rabbikum na ngeen gaawantu def loo xam ne dangeen ngeen am seen njéggalal borom fukk ak ñetteel ba mooy rëccu ci bépp njuumte ak gàttañlu boo xam ni dox na sa diggante ak sa boroom walla tàbb ci mooy yàlla ba pare dogu ci ne euh, loole euh, looy naqarlu la waaye looy bañ delluwaat la fukk ak ñeenteel ba mooy jiital waxu yàlla ci waxu képp ku mënti doon ci mbindaa fuuni ak doomu aadama yi képp ku mënti doon waxu yàlla moo war a gën a foor ci yow waxu keneen jaam bi féeg yarul boppam ci àgg ci waxu yàlla mooy li gën a foor ci moom mooy li gën a màgg ci moom mooy wax ji nga xam ne moo mën a yëngal xolam nit ki fi ak àggul foofu na yëg ne lu bëree bari des na ci digganteem ak boromam bu fekkee waxu doomu aadama bu simple moo mën a yëngal xolam wala moo ko mën a yóbbu fu sori te waxu yàlla du def loola ca moom kooku na xoolal boppam bu baax a baax a baax loolu moo tax jiital waxu yàlla ci waxu keneen ku mu mënti doon moo waxu yàlla moo féete kaw ci yow beneen wax budul waxu borom bi te doo rejeté doo delloo waxu yàlla ngir sa xel doo ko delloo ngir sa xalaat wala xel wala xalaatu keneen ku mu mënti doon borom bi nee na yaa ayyuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulih yéen di gëm yàlla bu leen jiitu yàlla ak yonentam ci kàddu maanaam waxu yàlla ak waxu yonent bi na féete kaw seen wax yéen yàlla mu ne te ngeen ragal yàlla yàlla ku dégg la li ngeen di wax xam li ngeen di def la fukk ak juróomeel ba mooy jaam bi daal di pare dajeeg boromam ci ay jëf yu baax parce que mbir mi loo fi nekk lu mu gudd gudd foog nga dajeeg yàlla dajeeg yàlla mënta ñàkk bu doon doomu aadama mën nga koo daw di wiiri wiiri ak di di naxantal waaye yàlla amoo ci solution lu mënta ñàkk la day yéex wala mu gaaw mais daje bi foog mu am comme daje bi foog mu am lu mënta ñàkke la na ko préparer ci li nga xam ne moom mooy jëf ju baax na ko waajal borom bi nee wattaqu yawman turja'una fihi ila allah na ngeen di ragal bés bi ngeen xam ni dañ leen di delloo ci seen boroom ngeen dajeek moom bakkan bu nekk ñu laaj ko lu mu jëfoon fukk juróom-benneel ba mooy bañ a wàcc wala bañ a bàyyi dara ci sa mbiru diine ngir aw ngir ay doomu aadama bañ a bàyyi bañ a ba bàyyi dara ci sa wàllu diine ngir ragal ay nit tax ngay bàyyi sa mbiru diine wala dara loo doon pratique wala doon jëfe ci sa diine ngir ay nit kooku jaaduwul fukk ak juróom-ñaaral ba mooy laabal sa xol dàq ci ñëpp ci wàllu mbëggeel yàlla mooy fi gën a foor ci yow ci wàllu màggal yàlla mooy fi gën a foor ci yow ba yàlla subhaanahu wa taala ci sa xol cofeel gi nga am ci moom doo ko yemaleeg lenn doo ko yemaleeg lenn fukk ak juróom-ñetteel ba mooy lépp loo xam ni yàlla màggal na ko loolee nga daal di koy màggal loolee nga màggal ko rawatina bu fekkee ni ay place la place yàlla màggal nga màggal ko lu demee ni màkkatal mukarrama ab julit bu denc ak kiñaan ci màkka wala ak mbañeel ci màkka kooku ngëmam da ko war a xoolaat màkka mooy fi kaaba gi nekk moo tax ñuy wax muy xaram gi mooy bërëb bi gën a sell ci kaw suuf te yàllaa ko sellal nit sellalu ko léeg-léeg nit dàkk fenn sellal ko ay nit daje sellal benn bërëb ne bërëb bu sell wala nit ku sell wala nangam mais màkka yàllaa ko sellal kon jullit bu fekkee ni am na ak ki ñaan jëmale ci màkka walla euh, am lu mu fay bañ ngëmam na ko seetaat parce que fu yàlla màggal dañ ko war a màggal fu yàlla sellal dañ ko war a sellal naka noonee madina muy al madina nabawiya fi tax ñuy wax muy jàkk yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka noonee néegu yàlla yi muy jàkka yi yooyu bërëb yàlla daf leen a màggal dafa jaadu ci ab julit mu màggal bërëb yooyu bëgg leen sopp bërëb yooyu naka noonee nitu diine yi nga xam ni yàlla subhanahu moo leen màggal dama ni yonent yi julit bi daf leen a war a màggal fonk leen war leen a yemaleeg naka noonee borom xam yi julit bi leen a war a màggal fonk leen waru leen a yemale ak dara naka noonee ay ñaari waajur yàlla subhanahu daf leen a fonk màggal leen jaam bi daf leen a war a fonk da leen a war a màggal waaye màggal gi ñuy màggal yonent yi ak fonk leen ak borom xam-xam yi ak waajur yi ak bërëb yooyu ma tudd dafay tege ci cadre charia nit ki du ci ëppal du ci def loo xam dafay dàquwante ak charia loolu li ma ta bàyyi xel la bokk na ca it mooy euh, màggal téere yàlla bi alquranul karim nit ki jàpp ni mooy téere bi war a gën a foor bu doomu aadama bi di topp ak di jàng <clears throat> ak di jëfe bañ koo yemaleeg benn téere ci kaw suuf borom bi nee na képp kuy màggal màndarga yàlla yi màndarga yàlla yi ku koy màggal nee na loolu dafay wane ne kooku xolam ak ragal yàlla ma ngi bokk na ci mooy bañ a sàggane bàkkaar yu ndaw yi moo xam yi wax ay wax la wala ay jëf parce que bu bëree bu yàggee da lay tàbbal ci bàkkaar yu mag yi Anas ibn Malik nee na gis naa lii bi mu koy wax taabi'i la ko parce que Anas dafa gudd fan ginnaaw bi fi yonente bi alayhi salaatu salaam jóge borom xam wax nañ ne bi ko yaayam di indi umu soleym di ko jox yonente bi fukki at la am bi yonente bi faatu fukki at la nekk ak yonente bi bi yonente bi faatu ñaar fukki at la am moom Anas ibn Malik bi yonente bi faatu vingt ans la am ginnaaw gi mu dund fi ba romb téeméeri at fekkee jamono yu bëri mu toog taabiin yi ne leen gis naa ngeen di jëf ay jëf yoo xam ni yéen jàppewu leen ko dara jëf yu sew ngeen ko jàppee comme ni karaw sewee ñun ca jamono yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko doon jàppee ku def tàbbi nga ci loolu alak tàbbi nga ci alkande loolu ba ko anas di wax ci jamonoy taabi'i la kon jàkk naa ne bu fekkoon ne gis na situation xeetu lislaam tey ci jamono ji kon doon na wax leneen yonente bi alayhi salaatu salaam mu ne ab julit ay bàkkaar ni muy mel ci moom mooy day mel ni ku toog ci suufu montagne di ragal montagne bi daanu ci kawam <clears throat> mu ne ni muy moytoo montagne bi daanu ci kawam mu koy bàyyi xel noonu lay bàyyee xel ay bàkkaaram mu ne waaye ci dëng kàccoor bi ci moom dafa mel ni weñ wu naaw ba romb ci kanamam mu ne ko nii daal di koy ëf wala daal di daal di dàq weñ wi geste bu ndaw boobu mu def ni mu woyefee ci moom bàkkaar noonu la woyefee ci moom xadis boobu alimaamul Buxaari moom moo ko solo bokk na ci bañ lépp loo xam ne bidaa la lépp loo xam ne bidaa lu ñu sos ci diine la noo xam ne yonente bi alayhi salaatu salaam jaamoowu ko yàlla loolu ab julit mbir moomu bu gisee ak di ko def loolee waru ko neex waru ko sopp waru ko bëgg waaye da ko war a bañ parce que dafa mel ni yonent bi alayhi salaatu wasalaam am na ay jaamu yàlla yu ñu waroon a jàngal mu dem te jàngaluñu ko ñu dem ba jamono ay nit ñëw xam ko diñu ko jàngal beneen bi mooy di bañ a xalaat ci jëmmu yàlla jëmmu yàlla ab julit warul di xalaat ci jëmmu yàlla yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na seytaane du dëñ di la xalaat loo naan la yow foo jege foo jóge ku la sàkk foo jóge ba yàgg mu xalaat loolu ci sa borom naan la yàlla fu mu jóge yonent bi alayhi mu ne dee xalaat ci mbindaafoonu yàlla yi ak li yàlla sàkk waaye bu leen xalaat ci jëmmam moom bu leen xalaat ci jëmmu yàlla subhaanahu wa taala parce que xa dugal foofu xel doomu aadama bi su dugalee foofu xelam day tarxiis da ko indi jafe-jafe parce que borom bi subhaanahu wa taala loo xool ci sa bët lu rafet loo xool ci sa bët lu rafet ba jàpp ne nuroo naag yàlla keroog la ko gën a sori loo bët lu ñàng ba nga jàpp ne nuroo yàlla keroog la ko gën a du lu bët mën a gis lu mel ni moom du lu xel mën a imaginer loo xalaat ci sa xel lu taaru ba ne yàlla la sori na ko loo xalaat ci sa teer lu ñàng ba ne yàlla la sori na ko parce que xel dafa gàtt ci loolu nga xam ne mooy jëmmi borom bi subhaanahu wa moo tax ñi ci xalaatoon ñëpp ci jiitu dañoo sànku ñi dañoo mujj di wax ay waxi dof ñii mujj nekk ñoo xam ne dañoo départ que foofu xel da ko àttanul bu fa duggee xel mi ci boppam day réer bu yàggee borom am jafe-jafe dootul wax waxi nit dootul jaf jëfi moo tax jaam bi warut di xalaat ci jëmmi yàlla waaye na xalaat ci yàlla bind mu ci gën a fonk yàlla gën ko màggal xam ne borom bi subhaanahu wa taala ku màgg la ku mag la rabbana atina fi dunya xasana wa fi alaxirati xasana wa qina azab annar rabbana la tuzig qulubana bada id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka anta alwahab allahuma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain qumu ila salatikum rahimakumullah